beneen jël mooy ku bew ku yàqal la te mu ne dee sax ñu baax ña la gën a yëpp te alal ju yàqu it alal ñu nay ñi moo ci gën a bëri lu ëllëgoon ne xam nga moom yàq noos nooskat la ba lay noosam nga ak yàqam nga mu ne araa naa alaay si dund bi kansan muy nàmm naa xisan bu aji wàññeeku ku la lay retin bépp guddi wama tan xus la dana ko wàññi al ayaamu fan yi wa dahru ak jamono yan fët dana jeex mu ne dund bi koom la goo xam ni saa su nekk mu wàññeeku te loo xam ne nii bëccëg gi dañ koy wàññi jamono di ko wàññi day jeex rek luy wàññeeku si jeex la jëm ndax dund bi fan boo dund rek fan wàññeeku na ci yow weer woo dund weer wàññeeku na ci yow at moo dund at wàññeeku na ci sa dund bu yàggee mu jeex comme que dund lay jeex mu ne bàyyi ma noos rek laam ruka maa ngi dénc sa dund innal mawta naka ma yaxtaa fekk mu ngi mooy alfata waxambaane bi wala alfata as ci naka tiwali dafa mel ni buum almurqaa buñ yoor wa sin te ñaari catam ya bil yeddi mu ci loxo mu ne maa ngi gëñ sama dund dee même bu la mooyee bis dana ñëw mu jot la ndax dee daa mel ni buum guñ yoor benn waay téye ci loxoom mata maa saa soobee yow man ab bis yaquthu muhammad ko li xat fii jëm ci deeyam ba man yekku te ku nekk fii xablil manniyati ci buumu dee yan xat dana xamatu de mu ne dee bu la jotu tey tamit xamal ne buum loo bum la goo xam ni dafa am loxo bu kàttan bu ko téye bis bu la bëggee téye rek daf lay xëcc te bu la xëccee nga ñëw maanaam ku deewu tey da nga dee suba kon nag balee ma mën noo samaalal xam nga ñoom jaaxe yéeréñ xam nga ñoon alaxira buñ ko xamee daanaka torul leen foofu fa maa lii ana lu ma ñeel oraani ma gis sama bopp wam na am mi ak sama doomi bàyyi tax maalikan maalik mata addnu saa yu ma jegee minu ci moom yéen a mu sori anu ci anni ci man wa yubidu mu soril ma mu ne waaw ana lu tax maalik sama doomu bàyyi tax saa yu ma ko jegee rek mu sori ma soril ma boppam lu tax maalik bëggul ma jege ko dégg nga yeluumu mu ngi may yedd wa ma adri te xaw ma alaa ma yeluumu ni si lan la may yedde kama laaman yi comme nu ma yeddee fi xay yi ca quartier ba xurtu nu ahbat doomu ahbat mu ne xurtu bu nu ahbat mu may maa ngi gis saa yu nekk mu may waaye ba léegi xaw ma lan la may ndax man def ma dara waaye asani naaguloo na ma min kulli xayrin ci bépp yiw tarabtu bu góog sàkku naa ko ka an naa def mel ni ñun wadaanaaw teg nañ ko ilaa ram si murxid yi murxad yi jëm si bàmmeelu laxat laxat mooy bàmmeel wax dañ koy gas gasaat ci suufu penk ba dugal la foofu mu ne Malick lu baax lu may wur mu ne ma yow doo ko am doo am lu baax ñàkk njariñ ba mel ni dañ koo suul ci bàmmeel amul njariñ ci man maanaam mënu defal lenn lu baax dafa mel ni kuñ suul lim ñàkkee njariñ xam nga kuñ suul mën laa lu baax Malick noonu la mel ak man dafa ñàkk njariñ ci man ba mel ni suul nañ ko ci bàmmeelam amul njariñ bu may defal ana lu waral loolu mu ne alaa xëy na ci dara xultu googu wax naa ko de xëyra an na nii lu mooy ne man nachettu laajte naa xamulata mahbat yi gëlëmu mahbat ga wala mu ux fil te sàgganeewu ma xamulata mahbat yi gëlëmu mahbat man de def ma dara li ma sell ne daal moom laa def mooy mahbat am na gëlëm gu réer ma laajte ko pour mu feeñ te sàgganu ma ci loolu de xanaa moom la mu war a meree ba du wax ak man di ma soril boppam lu baax lu mu bëgg mu ne doo ko am te du ma jëriñ dara mu ne wa qarrabtu jegeel naa bil qurba ca mbokk ga maanaam sàmm naa sama mbokk ak moom wa jaddika maa ngi gëñ sa muur mooy sa xéwal inna woon naka moom mataa yàkku saa yu nekkee aadun dëhël lim na kii sëtti ñeel musiba bu tat ba achadi ma teew mu ne man sàmm naa sama mbokkaale digganteeg Malick mu ne wa qarabtu jegeel naa bil qurba si jege ñaale wa jadduka wa jaddika maa ngi gëñ ci sa sens innahu naka moom mata yeku saa yu nekk aadun dël lin na kii sati ñeel musiba achadi ma teew man sama mbokkaa rek maa ngi sàmm naa ko te saayu yu musiba bu jafe eh, xewee rek danañ ma gis ma bokk ci ñi rek la musiba kon def naa li ma war a def wayn udda buñ ma xooyee lil jullaa jëm si mbir mu màgg mi akun danaa nekk min xumaatiya ci ñu koy aar wayn yatika bu la dikkalee ala daaw noonu bil jihadi ci ci góorgóorlu ajhad ma góorgóorlu ba dàq leen mu ne Malick saa yu mu ci mbir mu màgg mu ragg ma dem dimbale ko ci sàmm ko aar ko te saa yu ñëwee ak farlu ak góorgóorlu ma farlu jàkkaar ak noonu yooyu te teewut nii lay jëflanteeg man wayen yàq si foofu buñ ko sànnee bil xas yi ci lu ñaaw wayen yàq si foofu buñ sànnee bil xas ñu ci lu ñaaw xer dëkk sa der asqihim ma nandal leen bi shurbi xiyaadil mawti ci naan mbalkaay dee xam la tahaddudi njëkk tëkk mu ne noon noonu buñ la xasee yow Malick man du ma du ma fa jekk di tëkkuwante ñoom rek damay demee rey leen ñoom ñëpp balaa ma leen a tëkku te teewul Malick noonu nii lay jëfante ak man mu ne xijaa yi xas gi may xas wala boog xijaa yi ŋàññ gi may ŋàññ wa xas bi xas gi may xas bi sakaati ànd ak tawat gi may tawat bu mu tëradi ak dàq gi may dàq bilaa xadis yi ci lu dul benn xew-xew boo xam ne ahdasu sos naa ko la xas gi may xas ŋaañi gi may ŋaañi tawat gi may tawat dàq gi may dàq du dara lu ma def waka mu adisin ni ki aji sos hijaa yi sama ŋaañi wa xas fii ak sama xaste bi shakaate ànd ak tawat gi bu mu tëradi ak sama dàq bilaa xadis yi ci lu dul benn xew-xew boo xam ne ahdasu xew naa ko kuy sos di ma ŋaañit wala di ma xas wal di ma toll wala di ma dàq xamal ne def ma dara kon maalik ak keneen a ci yem ñoom ñëpp def ma leen dara te teewul rek ñu ngi may ngàññi mu ne falaw kaana bu nekkoon mawlaaye sama kilifa googu di maalik imra andi as cam boo xam ne woo moom xayru kudur moom la la faraja kon mu yëral kar bii sama njàq rek aw la anzarani wala mu muñal ma xaddi ba suma suba mu ne maalik bu doon keneen kudul moom maanaam bu doon keneen la ak taxawaay bi mu am ci moom konoon saa yu ma jàqee mu dindi jàqare googu te su ma juumee it mu muñal ma xam ne suba dinaa def lu rafet waaye mu ne Malick du kenn mu ngi noonu moom amul ngor ne waaye sama kilifa gi imrun as cam la goo xam ne foofu moom xaaniqi aj xooj la ma ala shukri ànd ak sant gi wa tas aali ak laaj gi aw ana wala sax man muftalin aji jotoo laa mu ne waaye lu ma ko gërëm gërëm teewul daf may teg lu métti ba mel ni ku may xooj lu mu ko nekk di ko ñaar di ko laaj di ko di yërëm tëru ci kanamam it teewul daf may musibaal ba mel ne ku may xooj bu ma ko waxoon sax jotee naa la sama bopp bu la musiba naree dal ma dee yow nga mucc sax teewul daf may finnaal ba mel ne ku may xooj mu ne wazul mu zawi qurba tooñ borom jegeñaale yi tooñ ak jegeñaale yi maanaam tooñ ak mbokk yi ashaddu moo gën a tat ma daal di doon ci lakk alal mar yi ci nit ki min waqil mi ci tàbbik jaase almuhannad yi ba da bañ hindaal jaasig hindi ñu dóor la ko moo gën a sedd say mbokk ak ñi la jege di la tooñ di la musibaal ndax ñi la jege ñoo la waroon dimbale bu ñu nee ba di la tooñ di la musibaal dafay métti lool ndax amutoo feneen foo làq moom la waa ñoo waxoon ma leneen soroxoon lu dul ndox koroon man naa ndox mucc ci a man ndoxama sorox nu may def xam nga ndox bu la soroxee amutoo mucc bu la ñam soroxee nga naan ndox mucc waaye bu la ndox mi nga xam ne moom nga war a naan mucc soroxee doo amati nooy def mbokk yi nga xam ni ñoo la gën a jege ñoo la war a dimbale bu fekkee ñoom ñoo lay finnaal kan moo lay dimbale loolu mu ne tooñ ak la jege moo gën a mën a lakk moo gën a métti ci dóor la jaasi fa zarni bàyyi ma waxul xi ak sama jikko Malick ba ma ak sama jikko ji bu dee sama jikko moo la neexul moom jikko yi mënoo si dara ba ma ak moom mm-hmm. indi naka man chaakanu aji gërëm laa la wala waxal la dina wàcc na bayti naa yéen daa ji sori da daraxat yi fa daraxat man bu ma demoon ba dëkk daraxat yi teewul lu baax rek lay wax ci yow yow su ma jikko ji bu ñaawee jëmale ma ko ci yow kon ba maag ni ma mel parce que man lu baax rek laa jëflante ak yow hmm. falaw sha bu neexoon rabbi sama borom kuntu ma nekk xays ibnu xaalidin comme xays ibnu xaalid falaw sha bu neexoon rabbi sama borom kuntu ma nekk amr ibnu marsad yi comme amr ibnu marsad faas baxtu ma di borom kasirin gu bëri wa zaara nii mu ziyaare ma banu na ay doom kiraamun yu tedd saadatun ñee sang li mu sawadi ñeel kilifa guñ def sang mu ne ni ma mel it yàlla ma ko def mhm. su neexoon yàlla mu def ma borom daraja ba mel ni xays ibnu xaalid mhm. su neexoon yàlla mu def ma borom daraja bu mel ni amru ibnu marsad mhm. maam alal ju bari ak doom yi tedd yoo xam ne doom yi sang lañ seen bàyyi sa nekk sang bu ne ma yàlla mu mel loo ma noonu waaye nag fii la ma yàlla teg gërëm naa teewul nag ana man arajulu maay góor ga ak darbu bu aji oyof yàpp allazi bi nga xam ne taarifuuna xam ngeen ko xacaacun ku gaaw yëngatu la karasil xayati comme bopp jaan ba al mutawaqili gaa ñi merestu mooy jaan wuy génn làmmañ ba ni làmmañ bi di mel xatiri ne man nag maay góor yëngatu goo nga damaa gaaw lool ba mel ni bopp jaan wuy merestu merestu ko bi di yëngati ko mu gaaw lool noonu laa gaawee faaraytu gëñ naa ne fukk du tàqali koog kash yi sama wet bitaana tan ak ak nëbbu liat bi ñeel jaase gu sew ñaari tuñ mu xanadi guñ hindaal maa ngi gën ci yàlla ne sama wet gi saa su nekk rek maa ngi fa laq jaasi joo xam ne ñaari wet yëpp a ñëw mu jugee hind xusaamin jaasi taasànq mu jaasi ju ñëw isaa maa xumtu su ma jugee mun tase ndaa ji dimbandikoo bii ci moom kafaa doy na alaw do dellu ga kafaa fekk na alaw do dellu ga minu ci moom albat u tàmbali ga lay si nekkut bi meex dadi di aji xoomaat mu ne jaasi la joo xam ne gu ñaw la su ma ko yoree nag pour mu dimbale ma ci musiba bu ma dóoree benn yoon du soxla ñaareel dóor bu njëkk bi doy na wala si ñaareelu dóor ba jaas ji it xomaatul jaas yoo xam ne booy dóor benn yoon rek am li nga bëgg boobu moom saa nekk maa bokk sama bokk tànn axi siqatin ja borom ma confiance la maanaam jaas bi ñu la laa yeen sani du dellu xandar yi bii celam dóor isa xëy bu ñu waxee mbaax leen defal ndànk xaala woon soo mbat ma xat yi doy na mbat ma mooy fa ñuy denc jaas yi mu ne jaas yi ñu la du dóor di dóoraat mukk benn yoon lay dóor nga am li nga bëgg su jaas di dóoree benn yoon nit ñi ne defal naa bul ñaareel mbatam jaas ji mun a jërutul wax ndax li na ba pare jaas ji bu xasee dóor benn yoon jërutul nit di ñaan naan bul ndax benn yoon ba def na lam bëggoon lépp maanaam rey na waajo bu yàgg boo naan bul ñaareel mbat mi ne kii rey na ko bu yàgg yotta dara bu gaawee bu njëkkalante al xawmu nit ñi asilaa ngandaaye wajate ni fekk nga ma maniyaan muy aji xaaru isa bullat ndem gañe ne ndem gañe ne yeddi sama loxo bi xaayi mii ci téewukaayu jaas ji xaayi mooy téewukaayu jaas ji mooy nit ñi bu ñu njëkkalante ngandaay nga fekk ma ma jiitu ci ngandaay ga saa yu ma téye nag ci eh, téewukaayu jaas ja damay nekk ko xaaru kenn mënu ci man dara maanaam man su ma xasee téye jaas ji rek am naa sécurité mhm. kenn mënatu maa jege ba barkin bëri na gàdd ak gërëm aju ujuudin ngay nelawaakoon asaara jéqi na sama ragal ba waa di dégg nga mm, ba waa haa dégg nga hmm? am ni def na waa waa dégg hmm. am si danaa bi at biñ ci mu jaradin muy rafleel fa marat mu romb kaxaatun gëlëm gu ponkal zaata xëy fi ni yebaram ak batt bi aji yoore mooy batt ba xam amatu soow yoore noonu mm-hmm. julaalatun gëlëm gu rëy mm-hmm. aqiiratu chiiqin kay mag mm-hmm. dégg nga kalwa bii di gërëm yu mel ni xet yelan da di mooy aji xut xutuntu ku wala nga ne aqir euh, julaalatun bii di mel ni euh, xet aqiiratu chiiqin di tànnee fu alalu mag yelan da di bu mën a xulu dégg mu ne bëri na gërëm yoo xam ni dañoo dajaloo bëri lool bark mooy gërëm yu bëri mhm. yu góor dégg nga ña ngay nelaw nag waaye ma ñëw rek xee gërëm yu njëkk yi ba ma ñëwee rek ci la gërëm yu njëkk yi gaaw xeewu tiit mhm. ndax xam nañu man bu ma ñëwee musiba laa di damay ñëw di rey gërëm yi mhm. maa ngi dox nag ànd ak jaase ju ñu raf leen benn gëlëm gaaw rek romb ma gëlëm gu rëy gu ponkal xam batt yu yore ndax amatul soow dëgër bu mel ni xeet benn màggat ak moom gëlëm googu màggat mu mën a xuloo màggat mu bàyyam la mhm. bàyyam moom gëlëm mu dem ci gëlëm bàyyam rek jël benn cor mhm. mu ne yaqulu ma ngay wax moom bàyyi ja waqat sarata fekk naaw na al wasifu eh, eh, eh, waq ak gëlëm ga mooy tànk ya mhm. wasaaqoo ak xel wa mu ne alasta ndax nekkoo taraa di gis an na li mbir te mbir xat atayta andi nga bi mu yidin ci mbir mu mën a jombale mu yidi la mu ne ma dem jël gëlëm gi rek cor tànk ya ñu daanu mag ma mu naan mag mi nga xam ne gërëm googu moo doon tànnee fam mhm. alal jooy ci gërëm yi mu ngi naan ma xanaa gisoon ne indi nga musiba def nga musiba bu rëy si mhm. rey gi nga gërëm gi waxaala mag mi mu naan alaa yëgal maasa taw na lan ngeen xam bi saari bin ci aji naan sàngara sedidin ga naa si ñun bax yu woo mbewam ga mu tax am mi di kaa ji tay la muy def mag mi mu naan waa lu ngeen xam ci waajoo xam ne naan ka de sàngara la bew goo xam ne sonal nañu lool koo xam ne li muy def yëpp moo ko tey waqaala mag mu naan zaruhu bàyyi leen ko sax a maa nafuwaa ñu njëriñu gërëm gi lahu ñeel na ko baleen ko moom moom gërëm gi maay bàyyam su ma dee moo koy doon mu di ko yàq baleen ko waaye way laa tekk fu bu ngeen fegut xaasil barki xaasiyal barki gërëm yee aji sori yes dat mu dolli de waaye nag gërëm sori yi moom da ngeen leen téye ndax mu ngeen leen téewut mu rayaat leen rek fasal la mu ne mu yendu al imaamu jéebéree mooy jigéen ña yam talil na ña ngay suul ca doom bu tàng ba xuwaaraxaa doomi gëlëmee woyu sana ña ngay doxal alee naa suñ kaw bis yi fii si seeritu jegeñ ba almusarhadi ba da bañ ba da bañ rëyal dégg nga maanaam mu ne gëlëm yi bañ na reyal ñu am doom yi si biir bu ko defee doom yooyu nag jaami jigéen ñi ngi leen suul si gëlëm mm, bu tàng bi di leen lakk mm-hmm. maanaam safara su tàng si daal di leen lakk mm-hmm. bu ko defee gëlëm gu mag gi nag ñu ngay dagg jegeñ ba mm, dégg nga mm, di ñu di ñu di ci lekk ndax jegeñ yi gi mooy li gën neex ñu ngay dagg jegeñ ba di ñu ko indil gëlëm gu rëy rëy nag dagg jegeñ ba kon dem na ci gëlëmu bàyyam nga rey lekk wala noonu la mel day yàq mu ne fay nit mutt bu ma dee fan yi nii tàggee ma bi ma ci naa xam ne anaa mën a ahlu yelloo naa ko wa suqi xottin xale ya ci man wala xale ya ngir man aljeyba sa poos mbubu yam na tam mahbad yow doomu mahbad mu ne yow doomu mahbad mhm. bu ma dee nag ma tàggee li ma yelloo maanaam waxal ci man samay mbaax baax da mhm. nga xotti bi xam ne musiba xam na mhm. wala tañaal yi nii ma def kam riin joo xam ne lay si nekkul xam moo yitteem ka comme sama yitt wala yox loo xanaa sama koom bu ma sama teew bu ma dee nga xewle maag waa xam ne nii melu ma ni moom tekkiwu dara mënul ma mënul maa remplace mënul remplace sama njariñ mënul remplacer sama teew bu ma dee nga mel noonu maanaam bu ma dee bu mel ni dara xewut na yëngal kër gi waa yoo xam ne ba tiwun aji yéex laa ni jullaa ci mbir mu màgg bi waaye sareewun aji aji gaaw la ilal jëm ci mbir mu ñaaw i aji torox la mu laxadi kañ bu max bi aj maaye rijaal yi ci kurfañu góor ñi aj maa jëmu jum jumu la jumu mooy kurfañ dégg nga mu ne bu mu xemalee koo xam ne nii foo ko xooyee ci lu am njëriñ dafay yéex a ñëw soo ko woowee lu ñàkk solo lu bon mu gaaw a dem koo xam ne fu mu toll góor ñaa ngi koy bu ma dóor kur muy daanu xamul benn njariñ mu ne bu ma tëkkale ko falaw kunt bu ma nekkoon wax lan di ku lot wax lu it danay firi koo xam ne ni dafay dugg ci mbooloo mu ko xóowut firi jaale ci góor ñi la dara nii kon kay mu ma adaawatu zawil asaabi noonoo borom àndandoor yi wala mu ta waxid aji wét ji mu ne su ma nekkoon ku lot ko doon ñëpp may lor ñi am ay ay àndandoor yu bëri danañ buñ noonu ak man danañ ñëw lor ma ñi nga xam ne amuñu àndandoor it ku ci noonu ak man ñëw lor ma walakin waaye nag nafa dàq naa nii ci man ay jaala góor ña jaraati sama jàmbaar alayhim seen kaw way xidaami ak sama song wa sibqi ak sama dëggu wa maxtidi ak sama rafet cosaan waaye li tax góor ñi sori ma kenn ñëmawul ma moo dañoo xam ne damaa jàmbaar te it dama leen di song damaa dëggu te it cosaan lu sell la am moo tax kenn ñëmawul ma kon nekkuma ku laa amru ko maa ngi giñ sa dund mal ayaamu déet fan yi illaa muaaratun lu mooy luñ abbu fa mastataxta loo man min maaruufiha ci njekkam fa tasawudi na nga ko yóbbulu mu ne àdduna dund bi luñ abale rek de bis dana ñëw nga delloo ko kon nag loo ci mën a xewaloo daal ci lu baax gaawal def ko rek dégg nga balaa nga fee jógee ndax léegi nga dee ani laa tasal bu laajte anil mari ci nit ki waa bu sir xoolal xarina hoo ka muy ànd ak faynal xarina naka xarit muqtadi aju rey la bil mu xaari nii ci kam yi xaritoog léeg-léeg nag mu wax dëgg mu ne bu laaj nit ki laajal xaritam rek ndax nit nit ku nekk ka muy taqoog du tàqalikoog moom kooku lay roy kon boo gisee nit mu taf ci boppam ku bon daf di ku bon boo gisee nit nag mu taqoog ku baax ku ragal yàlla xamal ne ku baax la ndax ñaar ñu safaaroo ñaareel duñ mën a nekk duñ mën a def laam ruka maa ngi si dund maa am rii déet sama mbir bi xummatin di aji muur xale ci man naxaari sama bëccëg wala lay di de sama gudd guddi bi sarmari di dappet di dappetoo xale ci man man nekkuma koo xam ne nii musiba yi day ñëw naqadee sama guddi gi sama bëccëg gi ba mel ni mënatumaa gis loolu man musiba lu bëri bëri lu ma jàqaloo du muur sama bëccëg gi mooy du naq lëndëmal sama bëccëg gi ba may jàq waaye tamit musiba du tax sama guddi gi yàgg ba may yàkkamti mu gaaw jeex maanaam moom amul stress daal mm-hmm. moom du du jàq du tiit amul problème moom day xéwalu ci dama xam jeex na mm-hmm. wayow min bëri na bis boo xam ne abastu tëj naa anaf sa bakkan inda iraq yi fa geeram ba xivaasan ngir wëttu ala awraat yi ci ayibu bis ba wa taxaduri ak tëkkuk bis boobu mm-hmm. bëri na bis bu naqari boo xam ne nii ñaareel jàmbaari sax dañuy daw xare ba ndax raglu gi bis bi raglu man ma bañ a daw ndax bañ ñu naan ma da daw ci xare ba da ngaa ragal tëkku yi alaa mawtinin ci guerre boo xam ne nii yaxsha dana ragal alfata waxambaane indoo fu moom arada alkande mata tantarik saa yu fàddante fii ci moom alfaraay su palank mooy dënn yi tanaat dana lox guerre la boo xam ne nii jàmbaar bi sax dafay ragal bu fa demee dee dangay ngay dem fekk jàmbaar yi seen dënn yaa ngi lox tiit man ma muñ ci bis boobu régler guerre bi ba bi jeex te dawuma wa ad fara wala boog wa asfara bëri na xeej bi aji soon mad mad buuxin bara bañ jegeel ci safara nasartu xool naa xiwaaruhu ak delloom maanaam ak gañeem alal naari ci kaw safara sa wastawdaatu ma dénk ko kaf fa muj mi di tënqab aji sooy muj mi di mooy koo xam ne du gañee ci carte lu bëri ñoom dañ laa ndamoo carte mu ne man bëri xeej boo xam ni dafa soon ma teg ko safara si lakk ko ba mu dëgër ma di ko karto karta gañe ba pare may ko koo xam ni moom dafay sooy du du am maanaam man dama naan kartam gañe ba pare maye ara danaa gis almawta de en daa doon nufuusi muy ndoxi bakkan ya en daat ja moo iddu mooy ndox mu bëri moo xam ne nii dafay daw rek dee it noonu la mel ndox la moo xam ne bakkan yëpp dañ ciy root wala ara danaa gis almawta de ah daal di nufuusi muy rootuwaayu bakkan yi wala ara du ma gis bàyyi dan mu aji sori xaddan suba maa aqraba lu gën a jégaal yow ma tey min xaddin si suba. mu ne dee daal gis naa ne ndox la moo xam ne bakkan danañ ci rooti kenn du ci mucc waaye mu ne luy ñëw lu ne lu jege la man jàpp ma ne suba dafa sori jàpp naa ne luy ñëw lu nekk rek lu jege la lu sori daal mooy lu narul am waaye lépp lu nar am rek lu jege la daanaka ñëw na sa tub di dana feeñal la al ayaamu yi maa la nga nekkoon. jaahilan di aji réere ko wayaatiika dana la dikkal bil axbaari ci ay xibaar man ka nga xam ne lam tu zawad yi joxoo ko yóbbul mu ne lu la jaaxal ci àdduna dundal rek dund bi dana la ko wan lépp lu la lëndëmoon lu la lu la jaaxaloon loo xamul woon boo dundee rek dana mujj leer sa bopp bi jamono dina leeral li lëndëmoon yëpp lépp lu doon xew rek bis dana ñëw nga xam ko te la la koy xamal mooy nit ñi koy xibaar nit dana la xibaar te fayoo ko sax joxoo ko yóbbul pour mu gëstul la maanaam résultat xibaar yi jërul lu ñu tu bàyyil noonu rek jamono dana la wan lépp nit dana ñëw ba ci yow nettali la li xew lépp te joxoo ko yóbbul pour mu wutali la xibaar boo xoolee loolu loolu la mu ngi am nit ñoo ñëw rek indi la xibaar rek lu nañu wax la ko waaye tiik dana la dikkee bil axbaar yi ci xibaar yi man kaa xam ne lam tabax jaayoo loo ñeel ko bataatan bagage ci tukki walam tadrib saddooloo ñeel ko ma waxta mawid yi waxtu rendez-vous mu ne nit dana nit koo xam ne ni jaayoo ko bagage yi muy tukkee santoo ko mu wutale xibaar ba ngay joxanteek moom rendez moom mooy ñëw maanaam ku amut ak benn relation jaayoo ko sa bagage yi muy tukkee waxoo ko ne ko nañ dajee barab sàngam nga jox ma résultat yi la nga gëstoog yooyu kooku dana dem xami mbir ñëw wax la ko moo tax lu la bul yaakamti boo teeyee rek di nga xam li xew jamono moo tax ku yebal def lu baax tey wax lu baax ndax kuy def safaan wala nga wax safaan lu mu yàgg-yàgg dana bis dana ñëw lépp feeñ waaw loolu la waa ji waxoon ne ko mahma wa mahma takkun inda mriin wala wa mahma yakun inda mriin min xaliqatin wa in xaalaha taxfa ala nnaasi tuxlami mu ne nit jikko bi nga yore bu yaakaaree nit ñi xamuñ ko it xam nañ ko bu feeñu tey it dana feeñ suba nit bu làqatoon ci barab bu kenn nekkut def fa la mu fay def yàgg yàgg bis dana ñëw loolu génn rek nit ña jot ci kon ku yewoo def lu baax wama laama yeddut nafsi sama bakkan laay mun aji yedd wama laama yeddut nafsi sama bakkan laay mun aji yedd léeñeel ma mis bu mel ni moom wala sadda fat fattut faqri sama ñàkk mislama malakat comme la moom na ko yeddi sama loxo mu ne man ni ma mën a yeddee sama bopp kenn mënu ma koo yeddee li ma mën a yedd sama bopp mu jariñ ma nit mënu ma koo yedde la ma nekkee daal bu fekkee man mënu maa wax sama bopp lii baaxul ma bàyyi ko keneen bu waxee du ma ko faale mu ne waaye it li ma am sama alal li ma mën a dindil ci ñàkk li ma mën a jariñ alalu keneen mënu ma koo jariñ moo tax damay góorgóorlu liggéey jariñal sama bopp ndax keneen kat li ma mën a jariñ sama bopp mënu koo jariñ waaye man maa njëkk yedd sama bopp ba bàyyi bon yi ndax ni ma mën a yeddee sama bopp kenn mënu ma ko yeddee yaa gën a xam sa bopp de nit ku am na loo xam ne mën naa xamu ko ci yow waaye yow mi xam sa bopp ni nga mën a yeddee sa bopp keneen mënu la ko yeddee in uridu l-islaah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh